kuréel bi euh, ñi ko organisé maanaam mbootaay bi nga xam ne moo ëmb organisation ak association sénégalaise yëpp yi nga xam ne ñu ngi Catalogne Catalogne nag benn région la ci Espagne donc lël bi dafa tombé ak euh, loo xam ne tàmbali woon nañ ko depuis mois de septembre bi passé mais mën naa wax sax sa kii bële mooy lënkale diaspora Euh, sénégalaise bi nekk fële ak collectivité locale yi nekk fii donc waxuma rek Tëngéej ko collectivité locale yu Sénégal yi nga xam ne am na am nañ ñoom yenn relation ñaari mbir nag moo taxoon ñu ñëw di wax dafa am loo xam ne benn takk boo xam ne bu ñu woowee pacte mondial sur la migration bu ñu signé woon en 2019 xam ne Marrakech ak yooyu état yëpp signé woon ko et pacte boobu dafa am ay sas yu mu jox aussi collectivité locales yi maanaam si ñoom sur la partie de politique de migration donc li ñëwoon fii mooy sensibiliser leen wax leen tamit jan mooy compétence yi nga xam ne wala lan ci politique d'immigration dafa war communauté locale communauté locale yi comme collectivité locale yi si question yooyu maanaam xalaat ñoom seen doom yi fiy jóge lan lañ lu tax ñu fiy jóge xalaat aussi bu ñuy retourner donc am politique stratégie migratoire donc loolu c'est important ñoom ñu xam loolu. beneen fànn bi ñu doon wax maanaam dañ doon wax ci euh, du ma wax xëyu ndaw yi rek quoi parce que c'était li nga xam ne moom la ñuy wax euh, ci xëy yi en général ndaw yi parce que ndaw ñu ëpp fii ci seen formation. donc loolu comme ñun dañoo am ay expérience yoo xam ne am na ay sénégalais yu nekk fële émigré la ñu woon ah ñu ngi liggéey ci secteur yu xarañ xëy na bu ñu ñëwee fii dañ leen di considérer que ne amuñu diplôme waaye xarañ nañ lool bay former nekk ay mentor ñoo xam ne dañuy tette ñi nga xam ne ñu ngi soog a dugg ci ci ci ci ci secteur yi nga xam ne ñu ngi liggéey mën na nekk ay étudiant mën na nekk mais ñoom seen xarañ may na leen que ñooñu si ñoom la jaar pour mën a pratiquer ñu ne lu tax suñu maire yi fii suñu collectivité locale yi mënuñu xalaat formation yu demee noonu yoo xam ne xëy na état bi am na lu mu def mais ñu xalaat loolu ñun liñ ci mën a apporter mooy que ne ndaw ñoo ñu nekk foofu te ñu doomu Sénégal que ñoom mën nañ leen envoyé ay yenn moment ñu former euh, ci secteur yooyu ci yenn module yi mais aussi que bu fekkee ne am na collectivité locale yu ko xalaat aussi ba tabax seen centre de formation boo xam ne pour loolu la répondre ci parce que balaa ngaa liggéey rek am xarañ ci leen xarañ googu pour ñu mën leen def formation ci module yooyu yoo xam ne mën na nekk professeur u fii bu fekkee ne dafa laaj alal jum ci war a def wala leneen ak leneen ñu bokk ko wuti ko waaw waxtaan woowu lañ doon def fii démb tey def nañ ko nag xalaat ne buñ ci boolee ARD yi parce que ñun suñu partenariat dafa yaatu euh, ndax euh, coordination bi ñu yore association yooyu ñu si bëri waa doomi Casamance lañ donc moo tax waa Casamance xaw fi bari parce que ñooñu ça fait plus de dix ans ñu ngi liggéey ak ñoom ci Tëngéej nag ñu ngi liggéey ak euh, mairie nord ak euh, arrêt métropolitaine de Barcelona doon nañ xalaat ci yoo xam ne ci ni ñuy defee gestion mbalit mi donc Covid bi sax moo tax eggale wu ñu mais projet boobu ak mairie nord ñu ngi koy def ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ñu ngi ko doon def ak mairie nord ak les femmes réseau des femmes aussi yow yàgg nañ liggéey ak ñoom depuis 2008 suñu association membre bi nekk Barcelone mooy liggéey ak soxna yooyu.